Café Teranga, le café des leaders. Le stick est à 25 francs seulement. Ladies and gentlemen, comme vous le savez, Marodi sélectionne les meilleures vidéos du Sénégal. Alors, téléchargez vite l'application. billahi la mhm. eh mooy waaye fàtt sa gém ci ginnaaw chien feeñ na nekk baa doon fopp caga bu góor bi te caga doo feeñ nga doo kenn ca wax te caga ba feeñ ca doo noppi chien wan na la boppam wan la photocopie de original la wan visage am naturel nag la wane leef leefar nga mel ne ku naan dowlin mi ngi nii yaay seen wax yëpp dégg naa ko yaay yow marichu bu tasee da nga ko war a delloo këram mais pas nga koy tasloo ay sëyam da xam ne ki sëyam xaw ma ci say dara de mais xam naa dara te mariage dafa bëgg xam nga dara ci mbëggeel moom ndax moo la tax a faa ñoom na eh. tôt ou tard dinañ lu ci na moom da ñàkk fay toog sama ci maan nga daw kenn xamul nga sóor yow ñëpp roobam des yow góor nga jottoo sa yow wundeelu ba taxawaal mi ngi nii nag yaru ngay sëgg na naa nga bàyyi bu amati la naqal nga jël sa seer wàcce ko

Eh, instant yi dama sax ruus xaw ma lan laa war a en tout cas merci beaucoup gis naa ni nga ci taxawee jàpp si et tout léegi xam ce qu'on va faire <laughs> pour me racheter je t'invite ce week-end à dîner non j'insiste j'insiste que tu n'as rien de prévu moom ñëwal kër man maa la invité d'accord ça marche ok bisous merci beaucoup devine quoi

don't think this again. okay. No. Non non, tu Yunga. Ouais. Ma soeur, comment s'est passé ta visite Ça a été. Hein. Mais mon amour, mm -hmm. parce que xam nga ne je me suis rendu compte que ba nga commencé def say visite ba léegi amu ci benn boo xamante ne accompagné naa la ci. Hmm? bii paa da yaa wax. c'est vrai maa parce que je le reconnais mais xool gis nga léegi à partir de tey bëggatuma nga dem def benn visite boo xamante ne du man maa la accompagner d'accord. loolu nga ma waxoon te loolu lay xaar si yow tamit. non sur toi je te le promets. waaye yow. loo mhm. jëlee kër Marichou. Je dois te parler, Nak. Eva, je pense que. amatul dara lu mu te dire... je je Marichou ma ñaan baat. léegi léegi <laughs> mais ma ko. lan. je Pod Je réagir eh. te eh Je Marichou de dinañ Je te Te bu ne nga xam Eva gis nga Marichou mënoon na toog amatul sentiment ci man moo ñëw wax ma ko dama koy may baatam mu dem ah. si elle ne veut plus de la relation elle avait qu'à me le dire ma may ko baatam mu dem mais li mu ma def ma ne biir këram mook tàntam ñu may toroxal non ça je ne l'accepterai pas moo tax Eva su bëggee man ak yow suñu waxtaan mu neex bul ma tuddati turu Marichou est-ce que je me suis bien fait comprendre parce que man ak moom c'est terminé je l'ai rayé de ma vie et ça à jamais man ak Marichou c'est terminé. bul wax len lo nar a regretté Marichou dafa njëkk rek Xamna len moko metti muy waxtaan bi ñu kéro ak sa yaay. ko utal excuse ah est-ce que xam nga né su amé dara lu may regretté xam nga lan lay doon le fait que Marichou ma jot ko tak mu nekk sama jabar instant lo rek lay regretté parce que mënoon nañ bañ jaar foofu Eva tu as toujours été l'amour de ma vie.

maa ngi lay jégalu bu baax a baax si lu jotoon xew keroog parce que du woon yoon du woon yoon ma doxalee noonu car malgré tout sama kilifa nga yaa jur ki nga xam ne que dama ko bëgg moo tax maa ngi lay jégalu bu baax a baax Nabou nag dama ko bëgg te xam naa ne que yaa ma ko gën a bëgg maag yow ñoo bokk benn objectif muy bonheuru Nabou su ma sañoon nag ma takk ko mu nekk sama soxna moo gën sàcc yu ñàkk teggin ak yu daganul yu ñuy def maag moom loolu daal mooy samay tàggu yow daal sama nattu nga sama nattu dëgg dëgg dëgg ma yow ma nangu sama nattu nga ma bañ sama nattu nga da nga ñëw sa yaay na la sa yaay yëgu de ah. noonu la kay man saa yaay ñëw na sama kër gi. sama yaay ñu ngi fi woon kañ la fi ñëw. lu ma yàqu da koo fàtte lu ma yàqu rek da koo dese bu waxtaanee sa yaay bu d'accord ci condition ba mu ñëwee fee ñëw boobaa naa leen wuyu waaye foo sa yaay ñëw fi dama waxtaan ak moom pare rek. su fekkee loolu sa xel daal. naa baax. baax a baax te moom dina fi ñëw incha allah waxaat ak yow. ba mu ñëw rek waxala moom mu ñëw. naa xam ne. Mhm. essentiel nañ nekk si jàmm jamono bàyyi waale njaay dañ nekkee xale. la ma jox di am. yaay si sañse rek la def. Hmm. yaay lan moo tax yow nga bëri histoire wax yëpp lan moo ko fi jar. yow laay dimbali. nga fi wax genre wax yow tamit. da bëgg a yow laay dimbali di dayam osé ba ñëw fekk ma fi di nga sëy fi sëy dara nekkul di ndax li may yow diggante ak moom jiitu la seen judd <laughs> yow laay jàppale de. yaa ma gën a metti mbir. lan moo dal hmm kéro bi nga ñëwé sama kër li nga fa ñëwee neexuma dara ta bob ba tay sama xel bi dalul lan la da nga feebar sala feebaruma dara daluma alalu aduna rek Momo yobé li yépp tay ba ci yow ni sax li dal ni dal sa borom kër man la sacrifice yi yow apa άλλο η βαχνή. Άκουσα ακριβή σημαντικά φόρμα. sa papa alal ju dul jeex la yor te ci sacrifice la ko ba. ban sëriñ. sama sering ba lumu Kamu xamuloo ko. sering mooy sëriñ lumu lumu yow paa looy wax nii. lumu lumu la moo tax lii yëpp am tey bu démb doon wallaahi ba ci sa borom kër bi Edu li ko dal yëpp man la. yow Pa da bëgg wax Edu li ko dal yëpp yow la. Hmm? Hmm. sa jëkkër nag ku aayoon la dafa mënoon a fubal surtout nag dool bal arrêté ay coup franc wala corner nag bu ko musaan teg da koy dóor sax papa man li ngay wax yëpp waxuma ko yow ñun souffrance bi ñuy dund yëpp yow yaa ko teg depuis boobu ba pare nga toog nii def comme si de rien n'était yow may souffrir daf la neex. sala sala suturaal ma suturaal ma sa baay la suturaalal sa baay.

lo bëgg dinaa la ko jëndal yow jugal ñu dem hôpital Fandé. dinaa jë waaw. waa jugal waaw waaw. Fana. <laughs> Eh, gars je pense qu'on est au pied du mur et il est temps qu'on trouve une. depuis quand le mec ma intrus ko xam. boy Joe lii mec ma ne nga gëj a lijjanti un lañ fi gëj a waxtanu a xaalis tal ni ñun lu donné ni problème la de ngay di xaar c'est mon frère Mariam Diop bi ñuy te instant bi dafa ñëw natt si ni ñun wala problème ah wóolootoo ma ma ah, bokk ni. kii mi wax mel ni tondeuse nii. yow kañ nga de. Eh, teel sa gémmiñ waxuma ak yow. sa réew ba ga jaay fii lay terse. booy jege si may damm sa baaraam benn par benn. loolu fii nga koy waxee bu ñu tasee mag yow kese doo ko wax. jo am nga chance nag. yéen seen morom ah. yow looy jaay doole borom doole yi xeexuñu ngay xeex. deug deug ñun sax affaire yu ñàkk fayda yu dañ ko dépasser bref on bref on xol nañ jall ci leneen fim toll ni Mariam Diop lañ doon seet elle est introuvable on doit trouver un plan B et très rapidement nañ xalaat ci loolu ñu xol ban usine lañu ñu mën am à part Mariam Diop et puis ça va quoi. je crois avoir ce plan B waaw loolu may xul ni bi ngeen di xuloo eh, arrête waxal accouche moo gën. bi liste bi j'ai vu le nom d'un certain Badara Cissé Badara Sissé. donc du ne nga ma Mariam Diop mënatuñ ci jot pourquoi pas ñu dem gis Badara Sissé. en plus c'est le seul qui réside à Dakar. Kiné est mooy plan B millions de Badara Sissé à Dakar kat kan la ci. je connais un Badara Sissé. Hein? mais je ne sais pas si c'est la bonne personne pas ñëw galé ci cette merde non attends c'est une coïncidence bu coïncidence. sa fait daan ñëw te ñoom et ñëpp touring forcément c'est la personne qu'on cherche xam nga fi mu xam ko buñ fi taxaw xaar nañ dem oh. gars yi bi man gisuma si sam bopp ci dara kii di lijjanti yaayam bàyyi loolu ñun yëkkatiwuñu bàyyi mbir bàyyi nii suñu kanam Lopez dañu war a wër Lopez moo kil ñëpp te Lopez je pense que mérité wul dund ci live bi te dinaa leen ko waxaat kil Lopez man moo ma soxal. mais yow depuis quand may ak. man looloo ma yëkkati seen jotaay bi je pense que man.

dafa dëggal juste li ma ko doon wax yàlla du la may ñaar yi bref xoolal fi mu toll nii yow damal nga sangu nga tëddi nga bàyyi ñu eh, dem li baax na bu baaxul lu muy def yow sam eh, <laughs> ajaratu Layla Nah, maa ngi lay réveillé de nit nga ñu ngay dugg ci kër jàmbur ne ah fëgg naa nag de dama la fekk nga sori ci nelaw yi nag xam naa boobu yaa ngi xalaat tonton Tafa moom nga mbëggalu làkkat moom booy nelaw da ngay xalaat booy yow da ngay xalaat. <laughs> yaay lay laa boo gisee mooy yollee ko ñëw fi dañ doon waxtaane ko rek maag yow ak tonton Tafa wax jooju laa bëgg nga valider ko bu ko defee ma mën a nekk ci liggéey bi. may valider. mooy kii moo bëggoon a may te déggoon ma ko kii waaye nday daba. damaa la ko waxoon. waaw gën ci ah waaw tax. yow da ngaa lekk lekkoo naanoo. nga mel ni liñ. damay régime. xanaa ku lekkee régime. kees orange man yëpp yaa moom ci Ndakaaru Njaay gi xanaa booy ñëw dugg ci kër jàmbur sax di wax ne dafa am looy bëgg nga am noonu yow. ci naka. am na compte orange man. amul compte. amul compte orange man amul compte. waaw ah, loolu bu amul compte orange man ma numéro am. man ngay dóor xeer. dóori xeer man. <laughs> jox ma li nga ma jox ma jox ko. mooy yow <laughs> yow mi ni loolu xewi na xaalis ci poos xewi na man sama téléphone moy sama calpe jox ma numéro légui légui ma envoyé ko légui mu jot ko légui ma sama morom de. da ah, baax na. tey dara gën koo gaaw. Eh, Layla. yàlla yaa do waar. wala moom bi daa bari ay set sax. sa néew ci loolu jëlal yi rek laa la te naa la xamal leen bu ko woo ma woo ko soo ko woo yàq lépp man maa ko a lu dugg ñoppam gi na ko woo nag yàqale dégg nga. du ko dem na ak numéro boo mën a yor ma envoyé ci sama compte orange money di nga am code booy jot. demal ci bép point bo xamante orange moyen la nga jot ko fa facilement. Hmm. sans problème. dina ci xam dara. akuy ah, kuy door a koy saga de. waaw loolu koy wax go jeex na. waaw ah, baax na. Eh, waaye nag am lu jeex rax de. monsieur dal fota man na ko am. xool rek. fota yi lan. nday da ba. nday da ba na jot li rek. yo di nga gis fota ba di nga gis jëmm ci. dina ko jot. ah do ma lëwalal bala ma dem. lëwalal lan. Boy Dieng mbaay Tambi Dieng. Boy Dieng la. yite Tambi. Tambi daal dama dugal rek génn. ah c'est bon. Boy Dieng ginnaaw gis man Boy rek. Hmm, ah, waa jot nga kat. jot naa léegi benn code orange ne sama téléphone. ñaata la. 200000 la ma yónnee. 200000. ba ma ko jotee sax damaa daanu xam. waaw. kii de wax nga dëgg yéen. man dama yaakaar ne ay wax kese la de. billaay. te naa ngoog bi nga xam bu dikkee dugal ma crédit rek la jàpp man ak envoyé ma yow li moom neex na de. xaar ma ñëw daw léegi si kees gi orange ma daw jëli ko. mën na jaay dafaa fekk ma fi am benn problème retiré rek. kii di wutal nag mbokkam dajaa fekk nijaay dafaa fekk ma fii ci kër gi dinaa réglé ak moom loolu. allo. si naa si bi de mais gisuma la de foo nekk. waaw. maa ngi lay seen avancé la. waaw bon man foogoon n'a ni sax doo ñëw mais bon dama don tànn sama chance rek. Betty li nga ma wo taxul ma ñew de xam la tax ma ñew j'ai envie que tu me dises sama jabar naka la yëgee ce qui s'est passé entre nous. Porte lolu c'est le passé loolu passé Betty mën nga ma tontu waaw wala dit bon dama don, waxtaan ak Louise.

c'est parce que je ne voulais pas paraître le sale type bu nga xamante ne da lay utiliser ba voilà mais nag petit tu as abusé de ma gentillesse léegi lan laa bëgg nga xam et ça s'il le faut dama la koy ñaan petit laisse-moi vivre en paix te nga xamante entre ñun ñaar c'est terminé c'est pas possible. terminé Pote, xam nga lan laa la bëgg xamal man ak yow lu ñu luyee dafa fort Y'a ngi dégg moo ëpp li ngay wax nii yëpp Pod dama ëmb sa doom. lan. da ngay fen. te dama lay wax lu leer eh da ngay fen. déglu ma déglu ma te dama lay wax lu leer gis nga su ma wasilee xale bi yow yaay ki may takk gis nga bés boo ko deful dinaa dem ba sa ñaari jabari wax leen ko. yow nag gëm naa ne yow da nga dof. dof je te jure yow d' accord léegi ay ay menaces léegi moo la dese surtout tu tu es pathétique te xoolal hmm. benn affaire dinaa la ko xam nga ne da nga ëmb d' accord da nga ëmb xoolal su fekkente ni sa ëmb su la neexee nga dem wax ko Marichou. man ak il y' a plus rien à faire là-bas parce qu'on a divorcé. soo ko xamul ma wax ça tombe bien ok mmh. mais Eva kooku c' la femme de ma vie. tu la connais très bien su la neexee nga dem wax ko kooku amul dara loo xamante ni dinañu mun séparer amul lenn lu ñu yàq suñu diggante man ak moom donc su la neexee nga dem wax ko du mujj fenn te xam nga maa fi du toga sax une seconde di déglu tey conneries yi yaa ngi may dégg vache folle kii dama ko yërëm. xamul sa li géej gi di riir. li ci kanam réew mi bien maa raw. ça va sama euh, mhm. ma waree nii nag su ma ñëwee orange man mën naa ci loo ne namm naa liggéey bi nag gëj nañ gisee. deux cent mille la waaw. ok waaw merci ba fan yi merci beaucoup jërëjëf. waaw awa kii fu mu dëkk waaw Ndeye Daba si ginnaaw la dëkk ok d'accord yow Marichou yaa ma bett yow li nga doon woote ndeke nekkul ci yow man de xawma kan waye man weddi la bas ni ki tey xam nga la bëgg waji mom jëru sax muy gudd nga jog nank yéeg ci kaw jël say bagage ak say valise nga ñëw ñu dellu sa kër ndax fi du sa kër yow max mëno tey xana bu la wax la li xew bala nga ma attaquer nga même m'expliquer la si ding ma expliquer mais sa kër lay doon sa nek du doon fi dama bëgg nga jog nga jël say bagage nga ñëw ñu dellu marichu yow yow marichu yow man man xàmmeetuma la yow tasoo de yow da nga daw sa mormu jigen mo la dàq feru tapet yi moy lan yow yi kañ la daan dal so borom jigen dina tax ngay daw dam bëgg nga jog jogal marichu nga ñew ñu delu fi do fi to eh eh eh eh, eh. munoo rek la sama kër munoo rek la sama kër bay rek la kenn yow sa fit gi reyna na. bañ ca tak fekke woko ko ta sit fekke woko ba bëgg nga man yow nga fit de yow ta nga fit yow ki gën na la demee ndekki bi dé ben yon sayna ta fayna ben yon tasna tas na yow na puusoo randoo fayoo paas dandoo nga na dëj tok ni guy mu da ngaa ab rab jinné nga faji ko da nga jinné nga faji ko dëgg ci yow di yaa tu di gën sama kër gi ah. gis nga taalee laa mënoo ma wax lu ma saf man yow ya ma fi indi té suma la di nga délo rek yow war nga ko mëna gëm ndax ah, xamante nañ bu baax. ci sama kër la. jukol baa am war ci yow légui ci pot nag laa jëm. ni toog sama baaraam moo gën toog xam ki naka jekk jikkoom neexuma rëy na fit xelam gudd na man dama xam nooy ànd ak kii kii mel ni guddi ak bërsët ak yow ni day ànd ak nawleem loolu naa am lu may waroon na toog xool. Ça va bien. Ça va bien. Ça va. Bon, lui c'est mon demi-frère Momo. Mhm. Elle c'est Kiné. Comme Nalen, je l'ai connais. Mhm. Oui. Ok. bon, nous étions à la recherche d'un serpent Badara mhm. qui connaissait notre père. Et vu que nous avons pas du de 7 je me suis posé la question à savoir est-ce que non mais Doulou, Il n'y a même pas une question à se poser Nela ça veut dire que moi la ça y war na sax xam lan lañ fi lijjanti. ça se voit que c'est arrogance arrogant sous pour batailler mi ngi votre père était arrogant Réel comme vous. père père. ok. Effectivement, man may de ici. Et je suis un ami de votre père. sama de la père. Je ma xam ci mom lu bari lu kenn xam. dem ngeen Saint-Louis dem suis Saint-Louis la fa def

comment vous mettre à l'abri. mais de quoi. mais pas pas. papa faut beaucoup de secte pour bon secte pour dangereux. père l'ignorance nous on l'a découvert à Saint-Louis et de loolu le fi quoi très sincèrement nous depuis qu'on nous sommes on nous met dans la tête que notre père est mort de façon très naturelle. Donc, un beau jour, Pascal il a été assassiné. C'est normal qu'on se pose des questions. Oh, ne me parlez pas de Pascal. Vous voulez me Pascal man luma len ci waxul mom mënu len ko wax Pascal c'était un idiot et eh, xolal duma tok fi ngay eh, sax eh, sam papa ben yona ah. moy yow yamal yamal togal yobaté bay bëgg dé man sax mako def man mi tok fi fi awma fi place oui et togal tok bokoy saga nga saga ko fenen mais pas sama kanam <laughs> Yo li nga def ni tay sa papa Pascal sañu mako def parce que xamna may kan. wow wow attendez mais vous êtes qui. tay bu ngeen magge tay ba dess sen bakkan di dund vous êtes à l'aise chez vous c'est grâce à moi. parce que sen pap fi mu nekkone ku j'étais la seule personne bo xamné ma ko meuna a taxawal ci famem secte bu bonne la nekk secte bu yes secte bu rey ay nit gis nga ñooñu bu ñu yëgoon ne yéen ngi ci sen tank dañ leen di rey

Ben, c'est juste des jeunes en union d'hommes, c'est une York. Des jeunes mm-hmm. Non, c'est bon, c'est bon. Ben, ok.